le drame de Kédougou euh, quand même quand même ki xam ne deux morts beaucoup de blessés ouais. toujours les mêmes problèmes de gestion de sécurité euh, des biens et aussi des personnes mais mm -hmm. là c'est surtout des personnes quand même tuées des jeunes ouais. comme ça parce que tout simplement dañu euh, kontaan nul ci seen doxalinu territoire mm quand même euh, je pense que bon ñu bëri nee nañu nañ def enquête quand ñu xam au moins lan moo fa xew. Hmm. parce que c'est trop facile aussi que nit ñi di dee pour rien. fekk du am benn enquête du am benn suite euh, c'est pas de la bon euh, gouvernance locale. Euh, bu ñu buggee def gouvernance <coughs> locale quand nañu sàmm surtout population d'autant que bon c'est que xëy lañu moo tax ñu jóg. gestion seen euh, ressource naturelle moo tax ñu jóg euh, je pense que loolu aussi euh, gouvernement bi war na ko sàmm mm-hmm. ak tous les acteurs politiques et de la société civile mm-hmm. bon beneen drame bi mooy bi nga wax aussi c'est passé inaperçu une dame qu'on tue comme ça bêtement ouais. bon ça aussi c'est insupportable quelqu'un ki nga xam ne am na affaire am bon ñu yeew ñu ne rey nañ ko et puis ñu fàtte ko mm. et il tellement de meurtres comme ça impuni bon loolu ça crée une psychose d'insécurité et, et je pense que gouvernement bi ak les la société aussi war nañu bàyyi que violence muy gën a law muy gën a law dans dans dans notre pays ça mm c'est un problème quand même très très sérieux